salaamaaleykum internet waa kër Serigne Moussa Seye TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal bu baax a baax di am mbégte bu baax ci safoo gi bi nga xamante ne mooy Serigne Moussa Seye TV ngi leen di ziar bu baax ni namoon nañ a baax nag di am mbégte bu baax jàkkaarloo waat ak yéen waaye di jiital ci nuyoo bi ziar bi Serigne Touba Cheikh Mouhamadoul Mountakha di ñaan suñu borom guddal fanam yàggal ko fi lool Mbacke Balla noonu lañ koy ñaanalee xalifa généraux ñu am mbégte bu baax nekk ci li nga xamante ne mooy wàccaayu anniversaire bi nga xamante ne mooy troisième édition bu Serigne Moussa sëy ngeen gis ne war na ko am le 30 janvier bii nii incha allahu rabbi nekk ci wàccaay bi ngeen gis ne ren daf ko tuddee ñi nga xamante ne ñooy tut tànk yi nga xamante mooy ànd ak Serigne fi nga xamante ne mooy ne mooy doon jàmbaar loolu macha moom lañ nar a seet si tey ànd ak Serigne Moussa dañuy dugg ci biir daal di xool naka lay waajalee bés bi fas yéene waxtaan ak moom bu ko defee ànd ak sama caméraman Serigne Abo Madiane nga Abdourahmane ñu ngi lay jaar bu baax comme ni ñu leen ko waxee woon mbokk yi ci début bi nekk ci li nga xamante ne mooy wàccaayu anniversaire Serigne Moussa Seye eh, troisième édition bi nga xamante ne mu ngi ko war a amal Euh, samedi le 30 janvier incha allah ñu nekk ci waajtaay ngeen gis ne ren jii daf ko tuddee li nga xamante ne mooy tuttànk yëpp comme ni ngeen ko waxee woon maanaam tuddee ko li nga xamante ne mooy bésu tuttànk yi te yaakaar naa tànk yi moom ku leen tuddee bés rek yaakaar naa defoo def nga leen a war ndaxte ay jàmbaar la ñu nekk ci xaside yoo xamante ne dañ ci yëngu tey nag euh, nekk ci waajtaay ñëw fi nga xamante ne mooy Pikine tali bu mag seet si kenn ci nga xamante ne mooy tuttànk yi nga xamante ne bokk nañ ci ñi ñu tuddee bés bi nara ñu waxtaan ak moom nekk ci wàccaay bi naka lay waajee bës bi naka la dundee li nga xamante ne mooy li ko Serigne Moussa Seye tuddee bés bi ñoom tànk yëpp muy kenn ki nga xamante ne mooy Serigne Abdourahmane Diarra yaakaar naa bu ñu ko waxee moom miin ngeen tur mu nekk tuttànk boo xamante ne macha allah am na lu ko suñu borom defal ci xasida yi moom tamit mu di ci nekk di ci góorgóorlu ñu fekk fi nga xamante ne mooy Pikine waaye tamit ñun toog ak ki nga xamante ne mooy euh, Serigne Cheikhouna Seye mi nga xamante ne bokk na ci ñi ko yor di ko tàggat euh, di def nga xamante lépp lu nekk ci moom rek mun nañ wax ni euh, def na ci lu am solo ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di ko bàyyi mu nuyoo Serigne Cheikhouna ñu ngi lay ziar bu baax a baax di am mbégte nag tey fekk la fi nga xamante ne mooy Pikine seet si Abdourahmane mi nga xamante ne yow yaa ko yor ci wàccaayu anniversaire u Serigne Moussa Seye troisième bi di la bàyyi nga nuyoo ak téléspectateurs yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si sang sang ñi na Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam di ñaanal sëriñ Muntaxal Basiir suñu borom kattanal ko yàggal ko fi loolu lépp lu mu naan liggéey ko si Ahmad Bamba Xaadimu Mustafa suñu borom kattanal ko ba mu defee ko ni ko bëggee bi jaay seex naa si Ahmad Bamba Xaadimu Mustafa ginnaaw bu ñu sant yàlla bare ñu ngi lay julli ñu ngi ñu ngi lay ziar baax bàyyi jili di la tatagal di la dalal jàmm di am mbégte bu baax si teew gi ngeen teew fii seet si tuutànk bi di sëñ Abdourahmane fa yéene waajal bisu sëñ Moussa Seye bi di troisième édition bi di ñaan yàlla suñ boroom kàttanal ko ba mu yàgg koo taxawee nii su mu guddal fanam yàggal ko fi lool ba dem ba suti bàyyi muy fan suñ borom mën na ko yàlla na ko def ni ngi leen di ziar baax di leen jox seen wàcc waaye te di leen ñaanal yàlla

maam nay mbaw mi nga xamante ne moo dugal si daara bi di ñaanal tamit euh, mm, sama ñaan waajur di leen ñaanal yéen tamit seen kii liggéey bi yàlla na yokku di ñaanal mm, sëriñ Moussa waaw jërëjëf suñu Abdourahmane ñu a baax ci kàddu yi nga xamante ni naa tout tànk yu bari mbokk na ci ñi nga xamante ni mooy seen ay idole mooy seen référence ba tax na mu jàpp ni moom tey moom dafay déplacé en personne ànd ak équipe bam ñëw seet si ko ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la bàyyi nga nuyoo ak ñi nga xamante ni mbokk jëlati mbokki taalibe ñu ngi leen nuyu baax di ziar di ñaanal bu baax xalifatul am di tay xetul muridiya sëriñ Muntaxa Mbàkke suñu boroom yàggal ko fii guddal fanam wéral ko ba naa li nga xam ne naa na ko ci yoonu sëriñ Tuubaa mu defee ko nu mu ko bëggee àndi ko sët yeeg seex yi yëpp barki sëriñ Tuubaa ñu ngi leen di ziar bu baax a baax jërëjëf sëñ musa ci nuyoo bu am solo boobu noonu naa bu ko defee rek sëriñ musa comme li ñuy wax ni tey ñu ngi ci wàccaay bi nga choisir ñi nga xamante ne ñoom ñooy tut tànk yëpp pour dëppee leen bés bi tey bëggoon nañoo xam lan moo waral nga nga bés bi nga duddee ñi nga xamante ne ñooy tut tànk yi. waaw xam nga liggéey moom benn la ndax liggéey Sëriñ Tuubaa moom amul tànk ginnaaw tànk kanam rek lay am. tout tànk yi tamit dañ leen a gën a soññ baax ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax incha allah. Mm-hmm. jërëjëf kon daal mun na ne eh, buñ jéggee li nga wax bu baax tuddee bi moom ab soññe la rek ñu gën a góorgóorlu ndax comme kuñ koy waxee yéen ñëpp a bokk lu ngeen def muy liggéeyal Serigne Touba yaakaar naa lii moom ne lu ñu rafetloo bu baax a baax tey ji sama xarit Serigne tey ñu gis ni Serigne Moussa daf leen tuddee bés bi yéen tut tànk yëpp nga bokk ci yow mu ñëw fii tey seet si la pour yëgasil la ko tey ban yëg-yëg nga am ci loolu noonu waaw tey moom kontaan naa trop tey moom amul ma wax ndax sama nga bëgg daal mhm, dama bëgg daal maanaam mhm. waaw am nañ mbégte si moom bu baax baax. Hmm. tey tey eh, mbégte bi ngay wax ni am nga ko ñu tuddee la li nga xamante ne mooy bés bi tey yow ak nan nak nga koy waajalee ak ñan ngay ñan ngay soññ ci bés bi pour ñu waajal ko. Ah, di woowaat hmm. hmm. say xarit say am di jàmm say mbokk ñëpp ñu ñëw parce que nag xam tuddee la bés moom dafa rëy. naka nga koy waajalee. yambar la nag yambar la moom ah, da ngeen di comprendre yéen internet waa kër Serigne Moussa Seye yi ne wax ji moom daa mel ni jàng bi la gën a mën ko wax ji di leen fàttali tamit moom mu ngi nekk nga xamante ne ci foofu noonu ci daara boobu di Miftahul Muna bu Pikine yaakaar naa ku nekk xam ne diggante Miftahul Muna ak waa Nooru daara ni ay ca Serigne Cheikhouna yow mi nga xamante ne yaa koy tàggat tey Serigne Moussa Seye ñëw duppee ko bés bi yaakaar naa du ñàkk di nga am loo xamante ne war nga ko ci mën a yëkkati ci ci ban yëg-yëg ngeen ko ngeen ci am yéen ñi nga xamante ne yéen ko yor di ko tàggat waaw yëg-yëg bu sori lañ si am ndaxte mën naa ne soññee la comme ni ko waxee ndaxte waajuram bi ko yor di ko tàggat ba mu yegg si fii nii man mii di wax ak yow nii moo ma tàggat tey jii ba tax ma ñëw si Miftahul Muna bi di si tàggat ay xale nii kon loolu ab soññee la bu dee ba tout tànkam bi mu tàggat ba yegg si fii wël bëtikuwaat jël bisam bi tuddee ko tout tànk yëpp rek soññee la si tout tànk yëpp ngir fu seen liggéey jëm si kanam ndax yaakaar naan Abdourahmane bu demee ba commencé di jàng xasida Euh, ginnaaw yàlla sëñ Moussa Seye mii la gis bëggal ko boppam ba tax mu commencé dugg si jàngum xasida gi kon loolu tawféex rek la tawféex te li may wax rek maa ngi woo waa Miftahul Mouna yëpp rek ak waajuram yi sunu maire Tànday Mbow mi di woo yaayam kura ak papam yëpp ñu jàpp si bis bi ndaxte lii dafa rëy am bis ñëw dippee ko sa sa sa sa tutànk yaakaar naa ni lu lu rëy la kon yaakaar nañ war nañ mën a jàpp si bis bu baax a baax a baax dooleel ko euh, lépp li nga xam ni ki ki ko tuddee am na si mbégte la ñu ànd la ko moom euh, fexe daal ba bis bi jag ndax bu jegee mel ne ni euh, suñ lépp jag na ndax yaakaar naa ni nuuru daayira ni ak Miftahoul naa benn la rawatina Serigne Bassirou sa yaakaar naa ni Pikine nag géej waay daari fi ne yëpp koy roy rawatina Miftahoul naa gi comme bu tuutaang bi demee ba jël seen ndaw dippee ko bisam rek kon yaakaar naa ni deseetuñu dara kon ñi ñaanal suñu borom ñi ngi yàlla suñu borom moo yeggale bis bi lépp li nga xam ne moom naan la ko si bis bi borom kattanal ko ba mën koo yeggal ni mu ko bëggee yàlla mën na ko yàlla na ko def barke borom Tuubaa macha allah suñu seexoonaa kàddu yi am na solo noonu la ñuy profité rek daal di nuyu ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Nuuru Daare ni bu Pikine Géejawaay di leen ziar bu baax a baax ay sëñ Moussa tey lan ngay xaar ci tout tànk yi ci wàllum taxawaay ci wàllum ci wàllum euh, organisation ci wàllum mobilisation ci li nga xamante ne mooy bis bi. waaw xanaa di leen soññ rek ñu gën ko waajal bu baax ndax bis bi moom seen bis la incha allah ñu gën ko waajal bu baax bis moom seen bis la allah. yow mi nga xamante ne yaay borom bés bi naka nga koy waajalee. ah ñu ngi koy waajal comme ni ko tout tànk yëpp di waajalee rek mm. incha allah. xam naa ni anniversaire bi moom macha allah yàlla na suñu borom yóbbu jàmm mais nar naa neex ndaxte jataay bu ñu dajale tout tànk yëpp moom macha allah eh, ci Abdourahmane eh, tey dama lay bàyyi nga nga nga nga woo ñi nga xamante ni ñoom bëgg nga ñu teew ci bés bi ak naka nga bëgg ñu ñu ñëwee ci bés bi incha allah. Mm. waaw xam naa rek. Mm-hmm. di woo suñu mbokk tout tànk rek. ñu teel mm-hmm. faa teewlu mm-hmm. waaw. tel fa xam naa nag moom dina dina nekk en direct ci ci di ngeen ko mën a seetaan en direct xam naa ci yenn yenn plateforme yi wala ak nu mu mën demee rek daa ngeen ci gën a am yeneen yeneen leeral bu soobee yàlla waaye tey ku nekk Abdourahmane Diallo rek dégg xam ko ci baat bu neex bi xam ko ci macha allah mën a jàng yàlla na ko suñu borom gën a dolli tawfeex tey bëgg nañ tamit ñi nga xamante ñu ngi lay seetaan xëy bëgg a découvrir Abdourahmane nga nga nga defal leen loo xamante ne tey bu ñu déggee Abdourahmane Diallo dinañ am envie ñëw teew ci bés bi seetaan si Abdourahmane Diallo bismillah nga barkeelu leen tuuti rek ci xasida yi وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين وشكر وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين وشكر قل يا ولي يا قدير يا نزير للمؤمنين إنك عاد بشير عزبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا زمن عزبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا زمن عزبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا زمن نفعتنا بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان xafistana bi wa bil islami faltan fanzil kulla anil malami qaddamta sayyid al baraya ahmada walanbiya wa rusliya man khumida qudi salata wa salama abada lum kama azayta man lam yabuda إلى النبي قد صلاة وسلام والأنبياء ورسل منجن الكلام على النبي محمد والآل صل وسلم وتجب سؤالي للمنتهى اكتب ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبل يحشر شهيد الورى مطارا يا باقيا جعل مختارا نافع صل وتصلم فيه أبد على الذي لقى يقود من أبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بالتسليم واذكر كتبيا نافع صل وتسلم باقترام على النبي والآل وصحبه الكرام salaatu salaati adiimi samadi ala nabi wa ali wa xumadi rudda makaid بشارة لصفو المدمنا مدا لكل محسن ومحسنا على بشارة ترى مختصنا واجعل أمة رسول الله عليه خير الصلوات الله مدد متى يقول كن يقني يا من يكون من لم تكني آمين macha allah sëñ Abdourahmane si njàng mu am solo moomu yàlla suñu borom gën a wéral baat bi guddal sa fan ba lépp loo xamante ne rek bëgg nga ko liggéey ci xaside yi suñu borom kàtt na la ba nga àggaleeg sa sago maanaam xam naa ni barkeelu rek nga def mu mel nii macha allah xam naa bis bu moom bis boo teewee gars yi danañ békk macha allah xale la boo xamante ne man dama koy faral di wax ku suñu borom defal feex la macha allah yàlla suñu borom xeeb dolli gën la dolli tawfeex ci barke Sewal Xadim xam naa ni nag moom yéen ñi yéen ñi nga xamante ne yéen a nar a seetaan bés bi moom macha allah nar naa nar naa lool xam ne nag jamono ji fi réew mi toll jamono neexul comme ni ñu koy waxee ak jàngoro ji nga xamante ne moo nekk ci àdduna bi lëmbee dëkk bi ñu ñaan suñu borom rek yal na ko bés bi yóbbaale bala ñu ci àgg sax yàlla na dem ci barke Cheikhul Khadim ba tax na waaye teewul Serigne Moussa euh, yëg gi mu yëg fans yi ak yi soppe yi fi mu leen teg ba tax na ñëpp di ko xaar bés bi mënul ñàkk ba ñu am dina def le tout ba ba fépp fu waay mën a nekk rek fépp waaye mën a nekk mën a seetaan li nga xamante ne mooy bés bi en direct fépp foo mën a nekk di nga ko mën a seetaan bu soobee yàlla kon sëñ Moussa lan ngay tàggatoo waaw ñu ngi leen di ziar bu baax di kontaan bu baax a baax si plateau bi. Hmm. di ñaanal baax si ab rahmaan yàlla guddal fanam. Hmm. wéral cëram. Hmm. ba li nga xam ne yéene na ko si ay waajuram ak ay mboqam mu defee ko nu mu ko bëggee barke borom Tuubaa ñu ngi leen di ziar bu baax di bég si yéen jërë ngeen jëf. jërëjëf sëñ Moussa jërëjëf sëñ Cheikhouna jërëjëf sëñ Abdourahmane comme ñu ngi lay jox rendez-vous samedi le 30 janvier incha allah jaa jëf. ba tey mbokk ñu ngi leen di jaajëfalaat bu baax nekkaat ci li nga xamante ne rek mooy wàccaay bi tey ñu nekk fii ci Pikine nar a seetsiwaat beneen tout tànk muy Serigne Khadim Sylla xam naa noonu la ànd ak Serigne Moussa gis ngeen ne Serigne Abdourahmane mu ngi ànd ak moom dañuy dugg ci biir nga xamante ne mooy Serigne Khadim moom tamit xool naka lañ koy nara a waajalee bés bi yi ba tey di leen jaajëfalaat bu baax baax rek ñëwaat ci li nga xamante mooy nekk ci wàccaayu anniversaire bi troisième édition bu Serigne Moussa bi mu war a amal le 30 janvier ba tey nekk ci di nga xamante eh, mooy fële ca Pikine tali bu mag fekk fa Serigne Abdourahmane Diarra tey nag ñu ngi ñëwaat fii nii ba tey ci biir Pikine fekkaat fi beneen tout tànk boo xamante moom tamit ku ñu ràññee la ci xasida yi di jàmbaar loolu macha allah di Serigne Khadim jàmbaar la bu baax baax ci xasida yi ñu ngi koy ziar bu baax di ko nuyu di ko ñaanal jàmm ak tawfeex di ko bàyyi mu nuyu ak ñi lay seetaan Serigne Khadim ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la bàyyi nga nuyu ak internet waa kër Serigne Moussa Seye TV yi lay seetaan maa ngi leen nuyu di leen sant ku nekk sa tur sa sant jàpp di jaajëfal Serigne Moussa Seye bu baax bu wër na jërëjëf sëñ Moussa ba tey ñu ngi lay jaaraat bu baax liñ la laajoon rek di wax ni lan moo waral tey eh, sa teewaay fii nii nga xamante ni moom mooy eh, Pikine ci daara ji nga xamante ne fi lañ ñëw fekk fi nga xamante ni mooy Serigne Khadim la waaw ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jox seen di leen ñaanal jàmm ak tawféex mm-hmm. di wax ne yoon mi moom benn la mm-hmm. liggéey Sëñ benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar mm-hmm. loolu rek doy na seede ñu ngi leen di bu baax di leen ñaanal tout tànk yëpp ñu gudd fan ak wér bañ mën a eggale li nga xam ne bébét nañ ko ci yoon Sëriñ Tuubaa bi macha allah am na solo ñu gis ne tey Serigne Khadim dafa bokk ci tout tànk yi nga xamante ne ñoom nga duppee bés bi parce que boo nee tout tànk yëpp xëy na ñëpp ci lañ bokk waaye moom bokk na ci nga xamante gën nañ ko ci ràññee ci rajaskat yi nga ñëw fekk ko fii ki nga xamante ci géejawaay la euh, Pikine bokk maa ngi ju naan géejawaay nga ñëw fekk ko muy répétition euh, ban ndax boo juddoo moom nekk si xaside yi suñ borom defal les tawféex dangaa war a sant Sëñ Tuubaa bu baax a baax dileen wax ñu gën a góorgóorlu bu baax rek incha allahu rabbi macha allah am na solo jërëjëf suñ sëñ sëñ Moussa suñu xaadim nga dégg li nga xamante moom la sëriñ Moussa Seye wax ni dafa ñëw duppee leen yéen ñi nga xamante ni yéenay tutànk yi anniversaire bi nga mu ngi ko ne tey ñëw na seet si waaye bu ñëwee tey fekk fi suñu xaadim mel na ne fekk nañ fi tutànk yi nga xamante ne ñoo nekk ci ko ni tutànk yëpp la ko duppee yow nga bokk si ñi nga xamante ne tey dafa ñëw pour seet leen pour yëgal leen ko loolu moom kontaan nañ si bu baax ñu ngi jaajëfal sëñ Moussa bu baax ñoo ñoo bokk yoon bi nag ñëpp yàlla nañ ci am ngërëm a sëñ Touba. amiin acca tey ana naka naka nga ko nar a waajalee naka nga ko nar a bis bi. maa ngi koy waajal bu wër incha allahu rabbi bés ba buñ ca yeggee lépp dana leer. ñan ñan ngay woo ci bés bi tey pour ñu ñëw sa morom tu tànk yi sa mbokk yi waa Pikine yëpp. maa ngi woo waa kuréel bi yëpp waa daara bi yëpp ak suñu waa kër. képp ku mën a ñëw rek baax na képp ku ñëw baax na. dégg nga xamante ne noonu la ko wootee waaye xam naa woote bi moom dañuy sàkk ñëpp rek ñu toog daal di koy seen i télé wala foo xamante ne rek danañ ko fa jàllale di ngeen a am ndax comme ni ñu koy waxee jamono ji moom yaakaar a tënk bu baax a baax ji nga xamante ne moo fi nekk xaw a tënk nit ñi sëñ comme ni nga ko waxee yaa ngi koy waajal xam naa dañ lay bàyyi rek nga barkeeloo benn xasida boo xamante ne moom ngay wootee pour ñi war a ñëw seetaan si li nga xamante ne mooy anniversaire bi le 30 incha allah الذين يعملون الأرزاق فعادهم وغيد برشا أما الذين يعملون الأرزاق فعادهم وغيد برشا fa dara wa yaa hatta yara Sëriñ Tuubaa macha allah suñu xaadim si njàng mu am solo moomu te pasteefu ñu ngi lay ñaanal suñu borom gën a wéral baat bi guddal fan bi sàmm la aar la ba lépp loo xamante rek am nga yéene ci xasida yi suñu borom kàtt na la ba nga àggale ko macha allah kon xam naa noonu la ñuy joxee rendez-vous ñëpp rek la 30 incha allah rabbi di ñu ngi ci woo ñëpp fépp fooy a nekk rek daañu def a seetaan ngi lay jaajëfal bu baax di jaajëfal sëñ xaadim di jaajëfal tamit seen jëw ji nga xamante ne moom lañu fekk moom tamit ci leen jox rendez-vous le 30 incha allah jërë